alors balaa ñu leen jox benn information dañ leen ñaan ngeen dem abonné waaye itam di partager vidéo yi pour ñu leen di mën a jox seen information à temps réel tey nag dañuy ñëw ci mariage bi nga xamante ni nii ñëpp yëg nañ ko muy mariage bu Virginie ak ki nga xamante ne nii moo di Moustapha Nam ki démb lañ ko doon célébré fële ca François itam maye jàkk bi fii la woon ci wakam ginnaaw boobu le mariage nag bi mu amee Moustapha Nam mën nañ ni dafa trahir ki nga xamante ne nii moo di copinam bi mu génn huit ans ba fi ñuy waxee ak yéen nii instant bi copine am boobu lee mu ngi tëdd ci lalu hôpital bi ndax boobu trahison bu metti ndaxte nag bu ku mu doon yow di yow nit koo génnal huit ans ferme mu xëy bàyyi la fi dem takk beneen xale bu jigéen loolu bu doon keneen tamit lu raw feebar di nga ko def waaye nag Moustapha naa mel na ni feebaru xale bu jigéen boobu noonu ñoru ko ndaxte fi may waxee ak yéen nii jël na ki nga xamante ne nii moo di Virginie Ndiaye maanaam ñoom ñu ngi laabaan laabaan bu neex fële sa France mu doon nag lu metti situation bi xale bu jigéen bi di dund kenn ñaanul yàlla dund ko ndaxte metti na ba si kanamu yàlla doon na trahison bu metti boo xamante ne nii sénégalais yëpp ñoo ngi koy ñaawlu lu mënul ñàkk la nag lu ndogalu yàlla la peut-être wala trahison la on sait pas waaye lu si mënti am daal gest bi ñaaw na acte bi ñaaw na mbokk yi loolu lañ leen indi loon ci seen site internet. Rufisque 221 TV kon mbokk yi abonné wu leen ba